kii nu kii nu pakk dimb de lu leer la waaw am na sa morom doon na ko fi wax de sa morom doon na ko fi wax de saa yi ah en tout cas daal man lim per en tout cas daal en tout cas daal Zarko contre Ada Fass xale bi jël nga xale bi en direct sur Kewel Info jël nga xale bi signature bi en direct la de live en direct jël nga xale bi de ak ah, grand bi jël na xale bi jël nga xale bu ndaw titre bu bees kii nu kii nu pakk dimb de lu am na sa morom doon na ko fi wax de sa morom doon na ko fi wax de boobu mag si saa yi ah daal man lim per en tout cas daal en bi jël nga bi en direct sur Kewel Info signature bi en direct la de ak grand bi jël na xale bi jël nga xale bu ndaw titre bu bees Thank you.